Alhaji Abdoulaye ak général Tijani dana denc leen ba pare le 11 mai 1968 lii la ko fay. ñun ñëpp war nañu dellu suñu xel ci yàlla te xam ne lu fi waay nekk war nga fa jéem di def lu baax ndax soo fi jógee ëllëg nga am taxawaay bu rafet. bu ko deful it fu leen nga jëm. amul kekki. góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër. teranga ñu leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war ne ëllëg dees di rocc ci doole ji ni ki lamin nga ñëw tëdd fi dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru déglu leen tuuti man waxuma politique waxuma pour ñu applaudiser dama leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu de ko suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi lan nit loon xamuloo ni day dikke lan la ñu xam ci biir lan nit mu nekk léegi ku ci xam dara ya yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem fa nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi fo bi te jéem a xam lu yàlla xam nañu koy jaamoo waaye di dugg ak di génn te tëral sa lammiñ te kenn signéwu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëggee daa daje koo xam ne kii avocat du fa jëriñ dara kenn rek la mooy président ba mooy chef ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yor teen yàlla ba mu xam ne kii mooy gañ avocat bi gaña na mu ne day na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bay pomi te bari kattan yi ñu dénk nit ñu fab ko jox ñu bi seen doole yi bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox leen ñu walbati ko tëgg ko gànnaay di ko rey jaam yàlla yi du dëgg jaamu leen yàlla su ngeen bàyyi caaxaan wa moo di dëgg ذلك المدنى وحقيكم باق على العديد وجد بكم راسي deuxième partie bi ci waxtaan wi muy Cheikh Al Hadj Abdou Aziz ñi ngi koy jël def ko ci wàllu éducation xam nga askan bu amee solo boo góor góorloo ba nekk ku baax yow ku góor góor góorlu ba takk famille bu baax soxna su baax di góor góorgóorlu ba am doom léegi première partie bi def nga ko mais deuxième partie bi nag moo gën a difficile muy éducation bi yar bi Cheikh Al Hadj ci éducation ci ni mu nekkee ndaw bi mu nekkee xale Seydi Hadji Malick mi nga xam ne mooy waajuram moo ko dalal baasin memara moo ko dalal jàng mu jàng ci loxo Seydi Hadji Malick ba moom Cheikh Al Hadji Abdou Dabakh nettali na ci téere boobu ñuy wax lamaxaat te Pape Makhtar Kébé def ko ak docteur Bachir Ngom nee na moom Alaaji Abdou bi mu amee huit ans muy juróom-ñetti at nee ci la dem ci Seydi Hadji Malick ne ko damaa bëgg a jël werd huit ans Seydi Hadji jox ko charte yi daal di koy may werd ne ko nag boo rafetalee yàgg suñu borom la soo defee naka sudul noonu yàgg suñu borom la sama yoon nekku si foofu loo fay jàngate mooy xale bu am huit ans war a toll ci xam xëy na li ñuy wax affaireu xale war a fo war a nàngam mais mu am huit ans am conscient wu war a jël lu toll ni salaatal fatih léegi nga xam ne ngay gis ku ne ba am 40 ans naa damay xaar ba si kanam tuuti pour jël salaatal fatih moom kon matagul sax ak âge bi am yépp Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh nag dafa judd rek xam ni moom dafa am mission bu koy xaar moo tax ñu ne wax avant avantiance mooy ak xalewu ak ndaw mosu see jaar loolu nag mi ngi ko donne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu musul jaar ci ak ndaw ndax xale boo xam te bi nga amee 8 nga xalaat a jël salaatal fatih mooy kon balaa ngay àgg ci 8 ans yi mosoo xalaat naka sudul noonu léegi nag Seydi Hadji xam ni mbir wala nit bala nga koo jariñoo foog nga defal ko li ñuy wax tarbiya muy éducation moo tax yàlla subhaanahu wa bi mu jëlee nit mu gënal ko lépp mu jël lépp pour nit war koo jëfandikoo dafa jël li ñuy wax éducation defal ko nit moo tax suñu maam suñu maam aadama ca na yàlla doxaleek moom moo tax euh, Seydi El Hadji Malick jël doomam jooju di Cheikh El Hadji Abdou Dabakh jël taalibeem bu mu wóolu mu di Serigne Hadi Touré Safaas Touré te Serigne Hadi ku ne xam na ni Seydi El Hadji moo ko jàngal Seydi El Hadji moo ko yar Seydi El Hadji moo ko yeggale ca yàlla Serigne Hadi moomu bi mu jàngee ci Seydi El Hadji ba téere yépp jeex mu dem ca baayam Serigne Ciss Touré Serigne Ciss Touré testé ko ci wàllu niveau xam-xam gis ni géej la ci Serigne Ciss Touré daal dugg ak moom nag ci wàllu baatin wàllu maqaama ne ko martaba sàngam noo si def mu ne ko xaw ma ko mu ne ko maqaama sàngam noo si def mu ne ko xaw ma ko Serigne Ciss dafa bënn bët yi di jooy ne ne Seydi Hadj Malick tas na sama yaakaar ndax ba ma la yóbbu si Alaaji Malick du xam-xam kese laa soxla woon daal di bindaat leetar joxaat ko suñu haadi mu ñëwaat si Alaaji Malick bi Seydi Hadji Malick liiree bi ne ko ah ndigal laa si doon xaar ñu am na foo xamante ni boo fa naree àgg ak doomu jàmbur te waajuram di dund foog nga am si ndigal moo tax Seydi Hadji Malick kon nag toogal nag fexe nag ba dugal ko ki goxi asamaan yi dugal ko ci wàllu baatin ba mu yegg ca yàlla kon li ma la bëgg a xamal foofu mooy Cheikh Al da baax bi ñu ko yëkkati jox Serigne Hadi boobu fekk na Serigne Hadi mat sëkk ci wàllu xam-xam mat sëkk ci wàllu niveau waaye itamit bokk na Seydi Hadji Malick yeggale ko ci yàlla ba maqaamu yu nit yàlla war a am fekk na mu làmboo ko mu jël ko jox ko sëriñ Hadi sëriñ Hadi defal ko éducation formation bu mucc ayib ah sëriñ Hadi bi mag ñi ñëwee ci Seydi Hadji Malick di bàjjanu Cheikh Al Hadj Dabakh ne ko ah Abdou na mu nekk ci sëñ Hadi metti na lool ñu la doon sàkk pour nga jële ko fa ndax sëñ Hadi sonal na ko booba Cheikh Al Hadj Abdou ci tuut tànkam. dafa xawoon a xiiboon Seydi Hajj Maalik ne ah tungu ne du teew ñuy nataal bàyyi leen ba ndey mbill ji ñëw ñu laaj ko booba daal ci ay at Cheikh El Hadj Abdou Dabakh bu amul ay 9 jàpp 10 soreegul lool ci wàllu at bi mu ñëwee Seydi Hajj ne ko ah Cheikh El Hadj Abdou Dabakh sa bàjjen diw sa bàjjen diw kon ñëw nañu fi nee nañu na nga nekk ci sëriñ Haadi dafa metti te daf lay sonal ñu doon sàkku ci ma jëlee la fa ngir nga noppalu ma la si doon laaj nag luy sa xalaat nee na Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Dabakh ne ko bàyyi Sëriñ Haadi de ku bëgg yàlla mën a nekk ak moom dégg naa bi ñu ko waxee Seydi Hadj Malick dafa bi mu waxee loo Seydi Hadj Malick Seydi Hadj dafa siggi ne ko addoom ah, doo tas sama yaakaar mukk ndax séentuwul woon loolu ci moom ah xale bu ñu yóbbu daara muy daw ñi lay sonal ngay daw yow ñi lay sonal ñi wax sa baay pour mu jëlee nga ne ko ku bëgg yàlla mën a ànd ak moom kon loolu dafa lay xamal ne kii doomu missionnaire la doomu missionnaire la kon moom ab mission la war a dox ëllëg loolu nag ah ma ngi ko donne ci yonent yàlla Ismaayila ca ba ko baay ba wooyee ne ko yàlla nee na damaa bëgg ma rey la mu ne ko lu la yàlla sant rek d'accord naa ci yow kon moom Cheikh El Hadj li mu bëggoon ci Cheikh El Hadj baax pour mu nekk nitu yàlla moo tax mu koy tàggat mu delluwaat ko ci Serigne Hadi nee na sëriñ haadi radiallahu taala anhum ajmain daan na jël li ñu wax mbiskit bàyyi ko ba mu am arrière gu dañ koy wax dama dem ba mbiskit mi commencé xaw a màggat ba am ay gunóor am na ay gunóor yu ndaw yoo xam mbiskit boo ko tegee ba mu yàgg am na ay gunóor yu ndaw ku jaar daara di ko xam bàyyi fa mbiskit mu bees ma ba mu mel noonu mu woo Cheikh Alxaaji Abdou Ba ne ko lekkal mu daal di lekk kon moom sëñ Haadi mi ngi yar alaaji Abdou yaru ko ci kii doomu Seydi Haaji la yaru ko ci kii doomu kilifa la yaru ko ci kii doomu borom barke la mais da koy tàggat ba bu ëllëgee mu mën a affronter mën a tenir waaw mën a mën a jàkkaarloo ak àdduna ni am na mission boo xamante boo ko nar teg ci loxo nit te jaarale woo ko fenn boo koy jox muy échec loolu moo tax nit ki bala nga ko dénk yenn responsabilités yi foog nga tàggat ko ba pare moo tax bàyyam Seydi Haaji ba mu demee Mauritanie ci góor gi Mawlut Faal di fa jàng Seydi Hadji Malick nee foofu la njëkk a sàmme giléem di tarbiyu góor gi góor gi di ko sàmmloo ay giléem bi mu paree ba mu jox ko li mu koy jox dani ko Seydi Hadji Malick boo demee Thio boo demee Sénégal fexeel ba bala ngaa jël ci sa taalibe di leen responsabiliser di leen muqaddamal wala nga leen di lijaasaar wala ngay def ci ñoom lu leen nit ñi di toppe na ko jàngal defal ko éducation bu baax pour que bu ëllëgee ñi mu jiite mu xam ne ay nit rek lañ kon nit ki boo ko deful éducation bu ëllëgee ñi mu jiite day jàpp ne buur la ak i jaamam loolu nag la Seydi Hadj Mal doon bañ moo tax mu jox ko Serigne Hadi Serigne Hadi jaarale ko foofu moom na bi mu nekkee Serigne di jàng moom Cheikh Alhaji Abdou Dabakh ku teel a am fatxu la fatxu defe naa ni mooy ouverture d'esprit mooy ku teel a ubbeeku la ci wàllu xam-xam ndax Euh, moom téere boobu ñuy jàng ci grammaire nga xamante ni dangay jàng ajjurum daal di jàng euh, bala nga àgg mulxatul i'rab doog a jàng ibnu malik moom bi muy jàng mulxatu i'rab lu njëkk muy jeex mi ngi mi ngi jëfandikoo ci wàllu grammaire loo xamante ni ku agressé ci langue arab moo koy jëfandikoo te booba jeexalagul téere bi ñuy wax mulxatu i'rab te téere bi ñuy wax mulxatu i'rab danga naan niveau niveau niveau secondaire lay doon àggagul sax ci niveau académique kon nga xam ne moom ku teel a ubbeeku la woon waaye itamit mokkal alquran dégg tamit fiq lool ci éducation boobu ñu ko daan defal mas na ànd ak góor gi Ceerno Seydu Nuuru ñi daal romb benn waay boo xam ni ñu ngi koy tudde ku xelam neexul ku wéradi bu doon ci suñu jamono ci langage boo xam moo gën a jege ñu baal ma ci waxin bi ñu naan dof koo xam ne daal gis na ni wéradina lam sol tabaarakallaahu nee na Ceerno Seyd na ko Abdu Abdul Aziz simmi sa yére nga jox ko waa ji nga xam ni dañ koy tudde ku wéradi ku xelam neexul mu simmi yéreem jox ko mu sol yooyu yëpp façon éducation la pour wan ko ni ki nga xamante nii dañ koo génn ci société bi jàpp ne xelam neexul nga mën a jël sa yére jox ko jëflanteek moom kon nit nag taxatul ni wax kon booba ñi ngi koy yar ci li ñuy wax communication mën a jëflante ak nit ñi bañ a xeeb kenn bañ a boddi kenn moo tax boo xoolee wayu sëriñ haadi boobu nga xamante ni moo ko ko way dafa gis ni jikko yi mu ko éducation bi mu ko defal defal ko jikko yi yar ko ci bi mu koy way ci loolu la koy way moo tax mu naan bu kenn weddi ndax maa ko yar maa ko xam waaw du xiiroo du ngiiroo du boddewante du siis du def dara kon jikko yooyu yépp nga xamante ni gërëmuwul ca yàlla sëñ Haadi fexe na ba raxas ko ci moom jël jikko yi gërëmu ci yàlla solal ko ko te te te dafa am solo ndax Seydi Hadji Malick daf doon wax ni li ma jot jàng yépp ci xam-xam su mënoon su ma ko mënoon teg dem jàng ko ci éducation moo ma gënal muy yar moo tax bind na sax ne jëf ju baax mën na laa yóbbu àjjana waaye nag pour nga gis yàlla te gis yàlla moo dàq fuuf àjjana nee na yar ak teggin moo la ko mën a may moo tax Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh ci niñ ko kii ku yaru woon la ni ngay xame ne ku yaru woon la da ngay gis ne waxam mën na wax ba pare lu discours bi yàgg-yàgg lu mu gudd-gudd doo ci dégg kàddu guy blessé sentiment nit doo ci déggeen mu waxe ci noo xamante ni daf lay gêner da ngay gis ni lépp rafet loolu nag yar ba ak éducation ba moo ko may moo ko may loola te moom Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh képp koo xamante ni jamono nante woon ak Seydil Hadji Malick doonoon taalibeem bi ab du ñëwee tarbiyu na la liggéeyal na la ngir am barke boobu demal na la tool xam nga li ci jamono da ngay gis ni doomu sëriñ bi taalibeey baayam yépp daf leen di jàppe comme ay taalibe mais moom nag moom Cheikh Alhaji Dabakh bi mu ñëwee ñi nga xam ne ay taalibe Seydi Hadji Malick woon daf leen jàppe comme Seydi Hadji Malick li tax mu jàppe ko parce que Seydi Hadji Malick mboolem ñi ko wëroon fexe na ba def leen alaaji Malick fexe na ba ba ba nawloo leen ndax fi nga koy xamee mooy ñi mu ko waroon ñëpp mu jàngal leen ku si nekk yëkkati na doomam bu jigéen ñim leen si mën a may may lis xam nga ku la may doomam bu jigéen mooy nawloo na la nawloo wante na ak yow kon moom bi mu ñëwee xam ni baayam ñu ko waroon ñëpp moom Seydi Hadji Malick li mu bëggoon mooy ñëpp nekk alaaji moo mooy kenn ku si nekk daf la xoole woon bëtu Seydi Hadji Malick te it moom ci éducation bi ñu ko defal li ñuy wax alxaya muy firi kersa am kersa am looy rus dañ koy yar sëñ Haadi da koy yar jël jikko boobu def ko ci moom ginnaaw bi mu ko doonee ci baayam Cheikh Alhaji Abdou Dabakh dafa bëri kersa bëri bëri bëri kersa ba mag ñoo xamante ni sax mat nañu ko baay dañ koy mujj rus ndax bëri kersam euh, dégg naa bu daan mas di seeti sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu bu demee du bëgg yëglu ko ni moom la dafay daal di rek ànd ci rang bi di def nit ñëpp di def. sa papa moom ci boppam. ne dafa jóge ca kër ga. ne fekk si nekk ci kër gi ci Njaasaan. radiyallahu anhu. ne kër gi mu ngi amee ñaari bunt. ne moom alxaaji abdul aziz mu yegg si ne fekk am ku taxaw ci buntu ba mu ne ko man day dama bëggoon dugg ziyaare Sidi Abubakar mu ne ko déedéet ne mu ne ko demal caraan ba fale ne mu ne ko jërëjëf benn waay Grèce ñu ko xanaa xamoo kii mooy El Hadj Abdoul Aziz mooy rek Sidi Aboubacar ñu dàpp ko ñu ko fii ma jëm moo ma gënal fuuf ñu ko ci ren bii ma jëm moo ma gënal ndax su ma jaaroon ci bunt ba li may am ci ren bii du ma ko am du ma jaaree ci bunt bi. benn waay mu bëgg paase mu pes ko mais mu ni rek tax. benn waaye gerte ni ko moo yow kii nga dóor ndax xam nga ko mun ko mën xaw ma ci dara mun ko kii mooy rek Sidi Aboubacar bu Sidi Aboubacar di fii ci Rasulullah kii mooy way mu wax da jooy yi kat lool ni ko baal ma mu ne ko déedéet dafa am rek lu ma yàlla bëgg teggal jaarale ko ci yow. wallaahi wallaahi. léegi loolu nag suñ ko déggee te foog ko jëriñoo ko. dana baax lool. léegi loolu ñu wax nag pour dëggal di Cheikh Sidi Ahmed ñu di wax. te it dañ koo yar ci nangu li ñuy wax kilifteef ndax euh, mag ñi nettali nañu nee nañu bi Seydi Hadji Malick àdduna maam Safeetu Ñang moomu di way juróom wu jigéen dafa woo lenn ci ay muqaddamu Seydi Hadji dama jàppatul nag turu. ñamu woowoon waaye ay muqaddam la leen woo daal ni ko jàppal ma ci loxo Mansour muy Mouhamadul Mansour mii magam jàppal ma ci loxo Abdul Aziz mii dabbaax jàppal ma ci loxo Mouhamadul Mansour nga jàpp leen nga yóbbul ma leen sëñ Babacar nee ko juralu ma ko ay doomi baay ay jaam laa ko jural lu mu soxla ci ñoom na jël kon ndekete foofu soxna sa Safiyatu Ñang mi ngi mi ngi mi ngi tarbiye mi ngi jàngal Cheikh Alxaaji Abdou Dabakh ci ne al ax al kabir bi manzilatil ab koo xamante ni mooy sa mag bu sa baay génnee àdduna wala sa baay sax di dund dafay yor sa cëru baay mu ne ko juraluma ko ay doomu baay ay jaam laa ko jural lu mu soxla ci ñoom nañ ko def moo tax wayam wu siiw woowu nga dégg mu way ko sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu ah tuus leen te bàkk ko te bi mu ko koy way booba sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mi ngi doog a jël xilaafa gi te sëñ Babacar bi muy jóg a jël xilaafa gi boo xoolee atu Cheikh Al Hadj baax xam naa ci ay 18 ans lay toll xam nga ay 18 ans 19 ans nga def poème bu doy waare noonu boo xam boole arabe ak olof ba noppi rim bi tolloo te violé woo wasnu yi ah loolu loolu nga xam ni kon ku teel ku teel a responsable la fa tabaarakallah éducation bëri na ay mag yoo xamante ni participer nañ si dëgg la. boo nee sëriñ Haadi moom mooy professeur am leader boo xam ne moom lañ koy askanale waaye képp koo xamante ni rek jamononte nga ak Seydi Hadj Malick di borom xam-xam yàlla may la Cheikh Al Hadj Abdou sukk na ci sa keppaar tarbiya la nga am loo def ci moom mu am lu mu jël ci yow fa tabaarakallah kon troisième partie bi ah ci éducation bi li ñu si mën a jànge moo di kon ndekete kilifa ak ku la mën a jur doo doylawoo jur gi rek foog nga am jaar-jaar boo xamante ni fanan lay jaarale pour ëllëg nga mën a mat lañ la doon doyee